salaamaaleykum. waaleykum salaam. salaamaaleykum waa Mbakke. salaamaaleykum sama mbokki Touba. ah balaa may def dara ma sant aussi ah, sama bàjjen ki ne cuun yàlla na la yàlla may wër wey la gudd fan. may sant Serigne Touba. di wax jërëjëfe sëriñ Touba. jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba ah tey mbokk yi seen doom seen mag seen rak seen jarbaat moo ñëw ci dëkkam pour seet si ay mbokkam wax ak ñoom dagan seeni baat pour mën a dem ci assemblée nationale bu bees boo xam ne li ñuy ñaan mooy yàlla defal ñu fa majorité ba lépp lu ñu mbébétoon bëggoon ko def fii ci dëkk bii di Touba ak Mbacké yàlla def ñu mun ko motal ndax umpalewu leen ne boobu ba léegi ñoo ngi jéem lépp lu ñu mën ci Touba saay suñ ñu soxlaa ñu bàyyi sunu yite yépp bàyyi sunu ajo jël lépp lu ñu am ñëw indi ko ci dëkk bi bokk ko ak ñoom lépp lu ñu soxla ñu taxaw ci segam nag bu ñu bu ñu yoree suñu yëfi bopp la ñuy mën loolu sàkkantumaak bu ñu yoree ay yëfi nguur pour doxal yëfi nguur ma leen di wax ne man seen doom Abdoulaye Sylla fii la soqee ko fii la bàyyee ko te man ak yéen xale yi fi nekk ñoo yemoon fii laa doon daan sama doole ci gaar bu ndaw jàng waane ma jël sama diplôme teg fële ne man businessman laa bëgg a doon homme d'affaires laa bëgg a doon multimilliardaire laa bëgg a doon te boobu wér na yàlla ne lu ma dix mille francs sax nekkul sama poos man ak ambulant yii nekkoon ci marché bi ñoo yem dañuy xëy suba di dugg occas di régler ba yàlla def tey ñu mën li ñu mën ma leen di xamal ne bu kenn xaddi na ngeen gëm ne saay soo leen ko gëmee continuer di ñafe li ngeen bëgg di ngeen ko am ndax man foofu laa jaar jaar-jaar boobu nag laa bëgg tey xalal ko sama rakk yi teggil leen coono yi ba nga xamante ne ñoom bu ñu ñëwee li ma defoon ci juróomi at ñoom ci ñaari at lañ koy def ma leen di xamal ne bu dee emploi xam naa nuñ koy créer ndax gisuma ci Sénégal entreprise sénégalaise buy employé li may employé ci ay nit mais li ma gëm mooy emploi nit moo koy jox boppam soxlawul ngeen di dem fenn di wuti emploi gëm leen seen bopp ngeen taxawal seen liggéeyu bopp ñu jàppale leen ci ngeen am li ngeen bëgg loolu lañ gëm loolu la ñuy woote waane loolu balaa muy mën a am il faut que liggéey bi ñu li mu soxla muy alal ñu jël alal jooju metti ko à la disposition de la jeunesse mu agsi su ndaw yi agsi su jigéen ñi ndaxte nag sunu yaay yi sunu sœur yi sonn nañ bés bu set ñu ngi wër di dem ci mutuelle yi di dem ci kalabaas yi di wut xaalis pour toppatoo seen njaboot pour liggéey am dara joxe dépense yore seen njaboot loolu nag dañu fas yéene comme ñun xam nañ yoon wi suñu yàlla joxee ñu am majorité sa assemblée nationale ñu teggil leen soono boobu taux bi nga xamante ne moom lañ doon lebee ñu fexe ba wàññi ko ba nga xamante ne financement yi danañ ci am accès di mën a jëriñu di ci mën a liggéey jëriñ ci seen njaboot jëriñ ci seen askan may ñëwati ci beneen fànn boo xam ne fànn bu ma soxal man ci wàllu tabax laay liggéey wàllu defar ay tali wàllu defar assainissement te gis naa ne fii ci Mbacke Touba daf fee sooxe nguur gi defuñu fi dara amul assainissement amul éclairage ñu ta bu set ñuy nekk fii dañu tànqal di wax ay di wax gundi bëccëg te defuñu fi dara kooku nag ki ko mën mooy ñun ñii xam nañ nu ñuy nu ñuy defee assainissement xam nañ nu ñuy defee ay tali yu mucc ayib xam nañ nu ñuy defee éclairage xam nañ li Touba ak Mbacké soxla ndax fi lañ juddoo yaroo fi xam li dëkk bi xam li dëkk bi soxla te bu soobee yàlla bu ñu demee assemblée nationale suñu priorité Touba lay nekk ak Mbacké mais nag mbokk yi du ma wax te du ma boole ci samay wax sunu kilifa diine yi sunu kilifa diine yi gis nañ ne nguur gi ñu teg fii tey nga xam ne nguur gu tele la nguur goo xam ne amagu fi juróom-benn weer ñëpp doyal ñu leen di xamal ne bés bu ñu yàlla yóbbu assemblée nationale li ñuy njëkk def mooy fexe ba jox war ma kilifa diine yi. jox leen seen place jox leen li ñu yelloo jox leen cër jàppale leen dimbale leen fonk leen ndax bu jàmm amee ci réew mi kilifa diina yi ñoo tax tey buñ fi taxawee mën a def lii sunu maam yi sëñ Ahmadou Bamba ak ñeneen kilifa diina yi nekk ci Sénégal ñoom ñoo ko ñaan ñoo ko tabax ñoo tax bañ tey ñu mun fi nekk donc ñi fiy nekk di saaga suñu kilifa yi dama bëgg bu la 17 novembre 2024 jote ngeen jël leen sànni leen ci biti teg ay nit yoo xam ne am nañ yitte am nañ yar am nañ diine. dina balaa may dem aussi ma jeexal ci li nga xamante ne moom mooy mbiru élection yi mbiru élection yi. ñun Touba la am Mbacké lañu am région de Diourbel lañu am muy Diourbel ak bambay may woote sama mbokk yi ñi nga xamante ne man ak yéen ñoo bokk fii bokk Bawol bu la 17 novembre jotee 2024 ngeen yeewu ci suba teel jël seeni carte dem sànnil ma ko man seen doom Abdoulaye Sylla ànd beesal Sénégal